ñàkk ya dikk na piqûre ya waaw tribune yéene kaa ne la vaccin yi day daal dina yegg si lu tolloog ñaari téeméeri junni kon ci ay dose jot nañ ko ni ki démb le soleil yéene kaa ne ginnaaw nag ba ñu jotee kon ñaari téeméeri junni ci dose yooye waaw ngir xeex ak wàllu mbas mi la président xam ne lu tolloog kon juróom million yu tëgg si lëf six millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille dose danañu di kaan dee ah waaw yéene ne lii moom mooy suñu li ñu def daal bi fi mbas mi nekkee ba léegi ni la eh, ñun loolee la ñu war a def dëgg la monsieur le président ne kon nag waruñu fee nekk naan dañuy ragal pikiir yi wala di ci am ay xel ñaar ñaqi wala maanaam nekk fi di wax ak yooyu daal déedéet ndaxte réew yi nga xam ne maanaam dañoo développé ay semaine a ngi ni la eh, ñu ngi koy jëfandikoo Dakar Times de ñu ngay nag lu tolloog benn million laa lay wax nii ci ay doos ñax la jarul di jarul xel mu tee jarul tamit yenn wax yeeg yooyu daal ci ñaq yi moom président yi ak les échos dalal na xel yaa waaye xel yi dalul de ci coowal Ousmane Sonko gi lé mar di tali critique yéene kaa gis nga x gis nga x ci boppam waaw doj ne démb laa wax nii commission ba 24 la yëngal ba day plénière koy dëggal tribune yéene kaa laata ama koo dëggal dee démb xaw nañoo dee ah dama ne la ay kurpeñ doo nga fa manqué démb laa la wax mbir mi miti woon na lool dama ne la ay meeru ñi Diop ay mu ne dama ne problème yi ci boppam kon ma nga dooree ca commission des lois la la wax dëgg la parce que nag bi ñu xamee li procureur kon bind na ci lettre mu njëkk ba di réquisitoire introductif ba day di wax ak le juge d'instruction bi lé ñin kay doon xaar mooy attakat bi juge d'instruction boobee daal di defaat ay enquête ngir ñu mën a xam kan mooy ala xam kan mooy x waaye defu ko ay dëmboo ne ca bis ca boppam laa lay wax nii la Sonko laa la wax Aïda Mbodj ci tribune yéene kaay yamu ca ndaxte gañ ndeg bawol gi day avocat Ousmane Sonko ba waaw moom Aïda Mbodj nee na yenn enquête la ñu fi def ginnaaw leetaru procureur boobee ba war wax ne kon Ousmane Sonko la fan la ñu sukkandiku ba war a wax ne x moomee Ousmane Sonko la Moustapha Niass day ci les écoles yéene kaay waaw nee na dama ne am na tur am na sant lettre bi ministre bi bind turu Ousmane Sonko ca nee libération yéene kaay ne waaye Moustapha Niass en tout cas commission ad hoc ba day waaw sampam gi dee ma mbir mi yëngu na de lool Cheikh Bamba Dieye waaw nee na waaye xanaa kon ala xam di x daa jékki-jékki yoo dugg biir assemblée soppeeku nekk Ousmane Sonko sur quotidien opposition bi ak noon eskri day booloo nañ nekk benn de doon nañ bloc de enquête yéene kaay ne x kay moo lakk daay gi laa la wax daal na dëkk ba de Toussaint Manga nee na dañoo bëgg assemblée nationale mi lée defal leen Ousmane Sonko ko Sonko Ousmane Sonko avenir u candidat anti système ba day ma ci loxol waa système bi allahu akbar les se ko yéene kaa ne Ousmane Sonko daal jàpp ne semaine bii di ñëw danañu laalli malaanu kii rangeem gi laa bi suba ci àjjuma ji ñu ñëw danañu convoqué Ousmane Sonko Moustapha Guirassy waaw moom de tuumaal na kon Moustapha Niass ne Niass mi la dictateur la day jaay doole Guirassy yemu ca parce que dafa mujj tekki ndomba tànkam ca commission ba laa la wax <laughs> waaw waaw l'observateur bañ leen doon déglu ca gendarmerie nationale ay way lañ fa wax ay lañ fa wax ma saisi bañ leen dajalee ñuy wax sangu bi nak sarbet bu ndaw bi ba ci demal naan ay doom de ay pilule Seydi Ahmed mbay avocat bi certificat médical bi libération yene kay ne jàppati nañ ñu bees day ci coowal menace de mort yi ñuy def kilifa yi dama ne la waa digay day sonal dañ lañ dugg bi yoon laa la wax waaw waaw Bawar ja dañoo njort na kan moo joxe numéro yi da waa ji sonal li liggéey de démb lañ ko jàpp Fatima Traoré day mujj dañ koo bàyyi mu ñibi Fatima Mbeng bu frappe jàppaat nañ ko lan moo tax ba Alioune Badara Dia ñu daal di koy jàpp kon te ndar géej gëlé indi ko Ndakaaru Njaay jël joo Biram Souleye Diop day vox populi nee na waa police seen koy wër de dañu waa di day jàpp nañ jàngalekat bii di Alioune Badara Dia de jabaru Biram Souleye Diop liñ naan ay duyam ci bopp borom la ñi xam ne ñoom ñoo tuumaal maître Dior Diagne day ñu ngi leen de ñu tuumaal avocat bi ñu ngi leen de source aane xanaa xamoo jabaru Biram Souleye Diop moomee waaw moog waa ji Sall de mbir ma taxaw na de ñoom ki lay door seen a fa ne Karim Xurum Xaax Assane Diouf Dame Mbodj ak ñeneen ak ñeneen sax ah waaw waaw ñoom ki door seen day woo nañu askan wi ngir ñu jóg taxaw de ki lay door seen waaw ci tribune yéen kaay ah gis nga Sénégal gi lée mënul nekk réew jaay doole laa la wax wàllum dictature laast toggal jot ci pétrole bi lée ak gaz bi Macky Sall day génnee na jàjj yee nag ah, waaw waaw évidence yéen kaay ca conseil ko xam lee de pétrole bi kay coow li mu fi juróon day moom rakku Macky Sall bi lée Macky Sall yaakamte na pétrole bi askan wi itam yaakamte nañu pétrole bi lée cey pétrole bi waaye nag gis nga Macky Sall ak lu mu yàkkamti bi pétrole bi pétrole bi pétrole bi waaw njuuj njaaj sàcc ak tappale gi ñuy wax ci pétrole bi lé na leer ba pare parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy rek boo paree ma ne la alaaji